pàcc boobu jëlee fukki weeram ak buur de remboursement bi matee ñu dajale waat seet beneen pàcc bu ñu ko jox kon vraiment lii ñu tàmbali maa ngi ñaan ñu jàpp ko fukki loxo ndax jamono ji toll na foo xam ne bu président Macky Sall di def effort yi bokkul ak yeneen effort yoo xam ne ñi ngi koy def ci secteur bu ne ay la yéwén ñun ñi nga xam ne moom lay dal directement war nañu gën a taxaw ñu gën a jàpp lépp loo xam ne aussi gis nañ ko ci programme bi dinañu fexe nu ñu àndee ak délégué yi amélioré ko kon maa ngi sant préfet Rufisque nekku fi dafa nekk ci yeneen daje yu mel nii mais sous préfet mi ngi fi commandant mi ngi fi ak mboolem service su état yi maa ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi ñu taxaw ngir activité bii mën a am ndax ñoo ko bokk liggéeyandoor maa ngi nuyu waa ministère bi aussi ñi ma ànd ñëpp di nuyu aussi délégué yi di nuyu imam ci moom lañu waroon njëkkee tàmbali na ay ñaan di nuyu artistes yi di nuyu ñi fi ne ñëpp di ñaan nag suñu borom may ñu ndam ci programme bii ñu dugg ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yeggaleeg suñu sago ba déwén incha allah bu ñuy taxaw fii ñuy wax ne ñu ngi indiwaat lu takkoo takkoo takkoo pour jigéen ñi gën ci mën a jàpp gën ci mën a euh, suqaliku maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne nag kàddu gii ma jël maa ngi ko jël ci sama turu naataango le ministre Omar Gueye ndax ñoo waroon ànd waaye dañ leen woo léegi ci ak daje bu ñuy def moo tax gisu leen fi ministre Omar Gueye moo tax gisuleen leen fi ministre d'État Ismaïla Madior Fall moo tax gisu leen fi ñoom honorable Seydou Diouf ñoom honorable Ndiagne ak mbooleem ñi ci waroon ne rek loolu moo waral waaye na ngeen xam ne kàddu gi ma jël jël naa ko sama tur jël ko seen tur jël ko ci turu maire de la ville jël ko ci turu mboolem maire yoo xam ne ñu ngi ci biir département bi maa ngi di sant di leen gërëm jërëjëf. ku ñëw fii tey département de Kër Massar délégué nag am na lu mu wax ma bëgg ci taxaw leeral ko ndax dafa ne am na juróomi marché yoo xam ne ñu ngi ci département Kër Massar bi te financé wuñ leen. loolu du lu ñu président Macky sant du lum ñu yónnee du lum ñu digal ndax gouvernance am yëpp daf ko def ci équité territoriale ak justice sociale loolu moo tax bi ñu tàmbalee liggéey bi sëñ Xaadim wax na ko daaw la ay enquêteur ñëw pour ñu enquêter marché yi fi ne yëpp kon juróomi marché yooyu nga xam ne yenn yi dañ ne woon dafa amoon ndox ñu déplacé leen ak peut du ñàkk xel du fàtt mu am yu ñu fàtte yooyu bu ñu génnee ci période bi enquêteurs yi dinañ ñëwaat ñu enquêté ñi fa ne ñëpp ñu def lu ñu président sant te mooy accompagner commerçant kon loolu lu ñuy defaraat la xam nga li indi programme d'appui au marché yi ñuy def te président Macky Sall yëkkati un milliard jagleel ko mboolem marché yu nekk ci région de Dakar dafa jàpp ne secteur bi ngeen nekk lu ci ëpp ñu leen di wax secteur informel ma leen di yëgal ne bu ngeen ko yëgagul ndax wër na ma ne ñu bëri commencé nañ di dégg li ñuy wax économie sociale et solidaire économie sociale et solidaire président daf ko def ministère jox ko jëwriñ boole ko ak secteuru microfinance ne képp ko xam ne yaa ngi kër-këri yaa ngi daan sa doone faw ndimbalu état di mën di dal ci yow rëkk loolu moo tax mu créer ministère ñu nekk ci nag di ci liggéey liggéeyu état yàgg na di dem ci askan wi dafa am loo xam ne buy ñëw day dal directement day jóge ci loxo tegu ci loxo mooy comme financement bi ñuy def te ñu jagleel ci Kër Massar téeméeri million mais am na yeneen appui yoo xam ne buy ñëw day ñëw de façon indirecte mais ci askan wi la jëm ma koy joxe rek ci benn bi sëñ Xaadim di wax sànq parce que fàttali na ne ci wàllu Covid bi bi muy door a am am na ndimbal yu bari yu jóge ci état bi jëm ci askan bi gis nañ fi dund gu bari bu ñu yëkkati woon di ko séddale gis nañ fi yeneen secteur yu mel ni transport yu mel ni artisanat yu mel ni éducation yu ñu aussi état bi appuyé mais ñun ñii suñu ci ginnaaw ndax Covid bi bi mu méttee ba métti président dafa yëkkati lu toll fukki milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll def ko ci courant bi fukki milliards ak ñaar douze milliards. fay facture courant yi ñun ñëpp toog nañu ñaari weer yoo xam ne fay ñu courant loolu dal ñu dal ñun ñëpp mu def ko ci ndox mi ñu toog ñaari weer yoo xam ne kenn fayul ndox kenn fayul courant secteur microfinance ci boppam bi mu def ci report d'échéance maanaam ñi leboon yëpp war a fay ñu may leen diir goo xam ne ñetti weer dolliwaat ci yeneen ñetti weer ne kenn du fay te weer yooyu nga toog fayoo ko doo ci fay pénalité kon loolu dafa nekk ndimbal yoo xam ne dafa jóge ci état bi dal askan wi mais mën nañ ko woowee ndimbal indirect te ma leen di yéegal ne ba fii ñu toll génn nañ ci mbas mi mais am na lu gën a metti mooy xeex bi am russi diggante Ukraine ak Russie nga xam ne impact économique yi daf ñu laal ndax dafa bëri lu ñuy jëfandikoo lu mel ni petrol bi ak yeneen céréales yoo xam ne lu ci mel ni liy jëm ci guru bi dafay jóge foofu te comme dëkk ba dafa am ay restrictions ñëwatul njëg yëpp yokk boo demee États-Unis tey luy jar ñaar fukk mu ngi jar juróom-ñett kon adduna bi France ak fépp ñëpp seeni njëg dafa yokk waaye ñun fii suñuy njëg yokkul li tax mu yokkul nag dafa am lu état bi génnee ci gafagaam delloo ko askan bi pour ñu téye prix yi fi mu nekk. boo seetloo ci wàllu énergie rek yëkkati nañ ñetti téeméeri milliards muy 300 milliards ñu delloo ko ci facture courant yeeg essence yi pour mu mën a bañ a yokk loolu ndimbal mu yëkkati lu toll ni fanweeri milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll muy 157 virgule 5 milliards yoo xam ne dañ ko dugal ci denrée de première nécessité yi ngir ñu mën a téye njëg yi fi mu ne kon yooyu ay ndimbal yu état bi di def mais président dafa ne loolu doyul foog secteur économie sociale et solidaire bi ñu accompagner leen ci wàllu encadrement ci wàllu formation ci wàllu koom boo xam ne dina ñëw ñëw bu oyof boo xam ne dina leen gën a mën a dimbali ci liggéey bi moo tax maa ngi ñaan ndaw bu jóge ci état di def enquête nañ ko recevoir te am na marché yoo xam ne di fa enquêteurs yi demee dañu ne kenn du yegg ci seen marché kenn du leen enquête te tey financement bi ñuy joxe wax nañ ko du financement politique financement pour liggéey la boo xoolee anam yiñ ko defee ànd ceeg mutuelu Kër Massar ngeen xam ne pour lu ñuy suqali la may wax nag président pàccam def na ko ñun ñoo ci des niñ ci desee mooy tey ñi ngi ne indi nañ téeméeri million nañu fexe déwén bu mu fi ñëw ñuy wax waxu juróomi téeméeri million ndax mën nañ ko ndax financement boo xam ne amul garant amul apport amul frais de dossier lépp dañ ko boole yenn ko ba pare def ko ci taux d'intérêt bu 6 pour cent kooku ku bëggul dimbali nit du ko def kon bu ñu ko defee noonu ba pare marché bu ne ci li fii di set 17 marché Kër Massar yëpp kenn ku ne ñu yëkkati pàcc jox la ko faw ñi nga xam ne ñoo koy yor ñu mën ko téye liggéey ci rembourser ñu constitué waat capital boo xam ne dina gën a yaatu te foofu nag dama fay taxaw sant délégué yi gërëm leen ndax coow li coow li nag dañu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax ndax bi ñuy def enquête bi dañu àndoon ak ñoom mu metti woon lool fii si Kër Massar ñaari nit jàpp nañ ci bu baax ñëpp jàpp nañ ci gaa mais am na ñaar ñu ma ci ràññee doye Assane Sylla mi jàpp na ci bu baax ndax ànd naag enquêteurs yi ñu dugg fu ne bi ñuy seeti saytu taabal yi le daaw Daouda Ndiaye aussi jàpp na si bu baax parce que maa ngi fàttaliku mu doon wax toujours yu mel ni bu ngeen koy def dugal leen ci maire yi ñëpp jàpp ci ndax commerçant yi lañ koy defal kon loolu yëpp bu amee ba yàlla dogal tey liggéey bu ñu tàmbali daaw ba mu sotti tey bi mu sottee ñu ne nañ ko def programme ñu war a door a xool financement bi fu ñu koy jëlee président ne yëkkati naa un milliard jox commerçant yi nañu tàmbali ci loolu dama ne nañu sàmm financement boobu teg ko ci yoon liggéey ko liggéey boo xam ne ñu am nag suñu contrat moral parce que xam nga man bu dawul duma daw bu ngeen daw duma daw bu ñu ne 100 tey suba bu ñu ne 500 may njëkk taxaw te li tax ma sañ ko def nag dama xam ne ñi ne fii ay jàmbaar lañ liggéey rek a leen tax a jóg ku liggéey tax a jóg nag buñ la poussé da ngay daal di xam liñ la pousse lan la nga def si sa fulla def si sa fayda ñu ànd liggéey mais surtout rembourser lu mën a tax ñeneen am parce que liggéey bi niñ ko defee mooy marché bu nekk bu ñu yëkkatee financement bi ñu lay jox dañ ko teg ci loxo délégué yi délégué yi ñooy xoolaat ci marché bu ne ñi nga xam ne soxla nañ ñi nga xam ne war nañ leen a puus ñi nga xam ne bor yu bari nekkul seen kaw ñu jox leen ñooñu mën a liggéeyaat delloo bu ñooñu delloowee ñu door a mën a jox ñeneen kon ñi nga xam ne ñooñu la ñuy wërsëgalee ñu njëkk jot nañu bàyyi xel seen moroom te solidarité boobu xam nañu ne am na ci marché kon amuñu ci xel ñaar